loolu moo may may ma wax ak Bassirou Diomaye jaxaar fay le président de la République monsieur le président yow yaay président bu gën a libre ci niñ ko fale fekkee nañ lépp xam na ñu bari nu leen fale am na ñoo xam ne pour ñu fal leen président Macky Sall 2012 pour mu fal ko France da cee jàpp dugal ci loxoom loolooy dëgg soo xoolee premier act yi njëkk a def yépp c'est en faveur de la France base militaire yu wadd nangu woon mu delloo leen ko appel entrant yi mu dindi ko jël Bolloré Môle nangu ko si ci Smithcraft jox leen ko jël euh, beneen ba beneen scandale ba ah ne ko trans jox leen ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen lépp lu fi entreprise française bëgg sénégalais bëgg ko sénégalais bay ñàkk sénégalais bi moom mooy ñàkk kon Bassirou Diomaye fay Diakhar fay président de la république yow askanu Sénégal kese dong rek ñoo tuur seen deret nangu ñu tëj leen kaso nangu lépp lu ñaaw ñu sotti ko seen kaw ñu ne waaw waaye li ñu bëgg ñun kon ñoom ñooy joxe suñu baat ñu ñoo lay fal mu metti woon lool lobi falu la réew mi ay lobi moo fi bari dóorkat yi ñoo fi bari lobi falu la parce que gëmuñu la woon man am na ñenn ñoo xam ne dañ ma doon woo di wax na ma waaw waaw seen booy bii ngeen foog ne dañ ko fal président la république ma ne ko ba ba ñu yegg ca sénégalais yi ñoom ñooy jëlal seen bopp seen revanche ñoom ñooy jëlal seen bopp seeni matuwaay lépp lu ñu war a def ñu def ko ci fulla ak ci fayda fulla jeeg fayda ji nag moo jur premier tour nga gagné élection présidentielle yi 44 ans mu jeex tàkk nga nekk xale bu ndaw kon koy wekk di ko respecté jiital ci askanu Sénégal amul benn nitu système bu la fal dañ la contrôle bañ la parce que ñu ngi ko tàmbalee ci Ousmane Sonko. oui ce gosse là ne respecte pas les institutions de la république ne connaît pas la république fekk république bu njuuj njaaj la république bu teguwul ci kaw dëgg la république bu nit ñi jël ay otage la di def ci république bi lu doy waar kon yow yaay président bu gën libre buñ mës a fal ci Sénégal yaay président bu gën a libre mus mës a fal ci Sénégal xaalisu bitim réew bu la falee diaspora sénégalais bi ñoo génn seen xaalis fal la def ci liggéey bu mucc ayib damay faral di wax na man falaa far def ci liggéey bu mucc ayib lépp lu ma a xew ci réew mi ñu xar ci seen tànk tubéy gàcc nga laa sénégalaise boobu mobiliser ay million pour fal la du ay nit ñu nekk France wala yooyu ñoo lobby pour fal la déedéet kon lépp looy def xalaat ci askan wi amoo benn compte booy rendre lu dul askanu Sénégal rupture boo deful ci yow la neex mais tu es un homme libre loge maçonnique jàppalewu la pour nga falu amul kenn ko mën a taxaw wax tey jii ci les pouvoirs organiser la ñoo fal dañ ma ko doon wax oui Pape Alé tu vas gis nga leen lobbies les loges ma ne leen dara bañ toll ca ngeen yéen di ngeen waaru di ngeen gis loolu musta gis parce que autant vous êtes organisé autant ñu ngi wax ak askan wi ci fulla ci fayda yee leen xale yi seen xel na tafe xale yi nag ñu ngi na patt toog xam lu bari toog ci am yaakaar nag parce que yaakaar ngeen taal ci réew mi c'est important espoir nit buy dund bëgg a tekki espoir lay jiital ci lépp espoir ngeen taal ci réewum Sénégal espoir ngeen taal ci réewum Sénégal saa boo leen di jël décision fàttaliku leen les quatre-vingt-deux martyrs yu ñu rey ba tey jii xamuñu ku leen rey waaye nag defuñu enquête defuñu dara